j'appelle toutes les populations à la retenue. Nous vivons dans un pays qui est le Sénégal et qui nous concerne tous. Je souhaite que tous citoyens euh, euh, soient à la retenue et éviter aussi de casser les biens des autres. On est tous responsables de la situation qui se passe dans notre pays. nous, bon, nous, l'avons vécu peut-être euh, dans le calme. bon, on a eu l'occasion de ne pas avoir de casse ici à l'intérieur de la gare Mais il y avait aussi des manifestations qui sont déroulées à, à l'entrée. Mais heureusement, les forces de défense et de sécurité ont, été là. Ils ont tout fait que les jeunes ne rentrent pas dans la gare Et vous savez que la gare il y a des milliers de véhicules qui sont là stationnés. Bon, nous nous, nous, nous basons euh, notre euh, travail bon, sur l'interurbain. Donc, euh, les véhicules, il y a, on a un départ, un point A, destination sur un point B, donc s'il y a des manifestations et il y a des risques en cours de route, donc les véhicules ne vont pas sortir de la gare Donc il a trouvé à un moment que tous les véhicules se sont stationnés dans la gare Il n'y avait pas de mouvement. Donc on vivait un grand risque que les gens se rentrent dans la gare et saccagent les véhicules. Mais heureusement, Dieu a bien fait les choses. Les manifestations n'ont pas eu, les manifestants n'ont pas eu l'occasion de rentrer dans la gare Bon, le, le manque de carburant pouvait poser beaucoup de problèmes, mais dans la mesure où les véhicules n'avaient pas de possibilité de pouvoir sortir pour aller voyager. Donc on peut dire que le préjudice n'a pas été très grave. Vous voyez, parce que aussi les véhicules qui acheminent le carburant aussi ne pouvaient pas se déplacer pour venir à destination pour livrer le carburant. C'est ça qui a eu à poser des problèmes. Mais heureusement que Dieu a bien fait on a commencé à être ravitaillé de temps en temps. Donc la situation est à peu près abordable pour le moment. Et comme vous le voyez aussi, la gare est très calme. Il n'y a pas de mouvement aussi parce que les gens aussi donc, euh, sont dans la discrétion. Quoi. Il n'y a pas de mouvement c'est parce que tout simplement ceux qui voulaient voyager peuvent annuler parce qu'il y a un risque. Donc ça joue et ça impacte sur notre travail. Donc ce que nous souhaitons, c'est que les gens euh, reviennent à la raison, dans les deux camps, qui reviennent à la raison et savoir que nous, nous avons besoin de stabilité et de calme dans notre pays. Parce que économiquement aussi, bien sûr, parce que la, preuve, vous voyez, avec le secteur qui se passe, avec l'Internet, même dans les autres secteurs, que ce soit ici, nous, nous travaillons avec l'Internet, vous voyez ma machine, ça fait quelque temps que, je l'utilise plus. Par exemple, les transferts avec euh, euh, la monnaie électronique, on a des problèmes. Quand vous allez dans les services, on vous dit qu'on ne travaille pas, parce qu'on est arrivé à un moment que les gens travaillent sur la correction Mais quand la correction est coupée, donc il n'y a pas d'activité, ce sont des pertes et des préjudices qui sont causés vis-à-vis de la population, mais vis-à-vis de l'administration. Donc c'est un manque à gagner et ça, ça nous retarde, mais ça ne nous avance pas. Donc on est appelé à revenir à la raison pour que les gens ay de l'avant mais pas de l'arrière eh, bu ñu né manifestation mom ku ne xam na ne day am gàllankoor bu bari ci dem bék dikk bi surtout pratiquement ñun nga xam ne ci secteur interurbain bi ci lañuy ñuy yëngatu ndax eh, pratiquement la plupart du temps bo sétlo axe yi nga xam te bi moy mëne ci raison yi mom la manifestant yi di occuper kon donc il faut que mu am gàllankoor bu maga maga mak ci suñu wal activité parce que pratiquement jour yooyu amul euh, ay amuñu clientèle parce que kenn demul kenn dikkul par risque pour ñu bañ a saccager suñuy jumtukaayu liggéey it moo loon tamit euh, oto yi daal di gaare maanaam bañ a tee dem par mesure de sécurité quoi. non ñun moom am nañ euh, chance bu mag a mag a mag a mag très sincèrement nag bon gisuñu fi benn manifestant ci biir gaaru Thiès bi mais nag à l'entrée amoon na ay yëngu-yëngu. mais eh, jotu ñu na euh, dugg ci biir gare routière bi quoi waaw mais la plupart du temps nak ci buntu bi mom toujours dina am ay manifestation mais tamit ak karangé gi ak euh, force de défense et de sécurité yi permettre nañu ba ñu mënu dal vraiment aral ñu buntu garage yi ba nga xamné yëngu kat yi ñu mëna a ci biir non ay jafé jafé yu mak lañuy indil parce que bon ñun suñu recette mu ngi dépendre ci nombre de sorties yi auto yi di def ndax ku ne garu ceer xam auto bi da fay ñew pour xaar pour am client yu ñew fekk ci ko fi mu mën ko jël pour mu leen transporter kon donc bu demuk dik amul rek donc ça veut dire que ñoom dañuy garé té buñu gënul dana répercuter ci suñu walu liggéey da ci walu kom kom bi mais en même temps aussi tamit municipalité bi tamit dina ci am ay jafé jafé ndax auto buy gën dina dag bon mais dana am tamit mandat bu muy bay ci bir garu routière bi té ku ne xamné tamit garu routière bi dafa am personnel boo xam ne moom lay liggéeyee sœur yi ak ak euh, ñi nga xamné ñom ñofi ñoom ñoo fi nekk ñoom ñëpp seen liggéey mu ngi dépendre ci ci recette yi nga xamné mom lañuy am par jour ma jox la benn exemple rek tey jii bu ñu sañoon bu ñu xëyee dañuy am ay plus de trois cent quatre cent départ yu jëm ci yeneen destination yaa xam Dakar la Saint-Louis Louga Diourbel Touba Mbour Diourbel et cetera et cetera kon donc oto yi bu ñu toogee ci biir garage bi demuñu ça veut dire que ko kon kenn du fi bàyyi mandat te ci mandat boobu ci lañ moo ñuy pour coxeur yi liggéey mën ci gis seen bopp mais en temps aussi seen personnel bi ne ci biir gare routière bi ci loolu tamit aussi ci la ñuy bénéficier pour ñu mën leen cee rek mu am dal appeler les gens à la retenue ndax ku ne réew xam ne amul lenn ci biir kaw suuf lu nit mën a tabax mbaa nga réaliser ko te àndul ak dal ak jàmm kon donc ñun bu ñu sañoon du am yëngu-yëngu bu ñu sañoon du am manifestation réew mi jàmm lañ fi ñaan moom la yàgg di ñaan te bu ñu sañoon it moom lay am ndax jàmm ci la lépp xaj oto moom ku ne xam ne ne bii daw benn xeer bu ndaw sax bu la dalee ci sa pare mu toj kon donc yàqu-yàqu am na bu sañoon aussi tamit kiy daw war na am quiétude am maîtrise li muy daw fitam dal mu xam fi mu jëm ñi ne ci biir it seen fit dal kon donc jàmm rek mooy tax nit ki mën a départ point A mën a arrivé point B ci jàmm ak salaam kon donc li ñuy lancé appel mooy que président bu ñu wee mu ñuy dégg que mu bàyyi xel ñi mu jaboote ay sénégalais lañ te réew mi ku ne xam ne ñi fi nekk di yëngu ci secteur informel bi ñoo ëpp fuuf que ñu nekk ci administration yi di liggéey di fay ko par weer ndax tey bu garage yi amul activité du impacter seulement ci chauffeur biy liggéey chauffeur bi dafa am ñu nekk ci wetam am na fi ay coxeur am fi ay roga jeeroog am fi ay restauratrices yu nekk fii ci biir garage bi am fi ay commerçant yuy jaay ainsi suite ay jeunes sax ñu fi laver ak oto yooyu kon kenn ku nekk rek am na ñoo xam ne bu ñu xëyee seen revenu journalier ñu ngi koy gaje si fii ci biir gaaru ceeb bi te bu fi oto nekkul client nekku fi kon yaakaar naa recette du fi mën a am kon bu kenn demul kenn dikkul aussi tamit ñi fiy xëy tamit di wut si lu ñu am kon a bénéficier loolu yëpp mu ngi mën a am ci kaw ak salaam kon donc réew mi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na fi yàlla wàcc jàmm kenn ku nekk aussi tamit nga delloo sa xel xam ne kii xëccu ak kii nga xam tamit tamit moo moo jiite ñoom ñëpp kenn ku nekk yaakaar naa li defar réew moom moo la ñor kii defar réew nag ñor nag yaakaar naa yàqu-yàqu wala yàqal nit koo xamante ne bii yoonam nekku ci vraiment loolu amul rendement ndax gis nañ fi ay tata yoo xamante ne bii nag tata yi ku ne xam ne ne état ko ay nit a ko moom ñu lebal leen ko ñu liggéey fay ba mu mat ñu moom seen alal gaare ko ci station nga ñëw fekk ko foofu saccage véhicule bi te kooku noonu tey ji oto boobu moom la yaakaar pour yor ci këram am ci ay recettam am kon donc ñi ñi aussi tamit on les appelle à la retenue nit am nga lu la naqari ça pas dire que da ngay fekk benn personne lambda bu yor auto di dem nga toj ko tojate ko yakate ko est ce que yaa kooku sax bokku len lu ngeen di xex est ce que ya bokku ko bokku len conviction mais est ce que kon war nga mën aller ko lepp lu way def rek da nga sóoraale sa moromu doomu adam nañ bayante xel te bañ di yakalante waaw ñu ñepp rew me ñu ñor asalaamaaleykum waaw waaw waaw loolu ngay wax de xanaa yaakaar naa Sénégal gi moom ñëpp gis nañ ko parce que li fi mom ñun ñepp ñoko ko mais nak aduna moom à chaque fois à chaque fois su loolu di am dafa am ñu ci raxaale yo xamni xeyna do mëna comprendre sax lan lañu parce que ñi xamoo fuñ bokk ak fuñ bokkul et puis dañuy ñëw fekk Allah jàmbur ñu gaari ñoo xam ne seen seen yoon nekku ci ñu ñëw yaqal lako ci rien du tout bo xamni après do xam foko ko jooyee ji wala fo jëm non lañ ci toll tamit mais nag sant yàlla non sama oto biñ koy yaq do fekk mu liggéey ba wacc gaare ci station Shell bi nekk na fal ñu fekk ko fa toj weer yi man ak sama ñet ñet yeneen ñet collègue ñu gaare fofu ñu yàq lépp chaque année ko toj leen toj lépp ah bàyyi bàyyi bàyyiwuñ fa dara bàyyiwuñ fa dara ah boobu de di ko dundee comme ni ko nit ñi di dund rek muñ parce kan, que tamit nag jàmm na loo xam ne bu ko yàlla tegee ci yow tamit mënoo dul muñ ko rek parce que amoo foo koy jooyee eh, ji amul loy de et eh, puis ko saata nañ ko daal ñu ngi toog di xaar ba xam lan la ci yoon di def ñu ngi toog di xaar manifestation kay bi mu commencé ba naka ne moom wax dëgg yàlla moom ñu ñu ngi toog rek parce que amuñu mënuñoo dem mënuñoo dikk te den den bëgg a dem mais wóorul parce que xam nga oto moom ay weer rek la comme xale yi dañuy yàq ko tojo ko taal moom ñu ngi taxaw daal di ñaan yàlla yàlla jeexal ko rek. mais amoo leen ci benn yàqu-yàqu fii ci seen oto yi wala ci garage bi yàqalu leen dara ci seen wàllum liggéey wala. waaw xam nga ñun moom dañoo yor ay tata tata yi ñu yor bi ñu wàccee ban gaare leen ci station selbale fa leen fa leen fekk ñoom taal lakk leen toj leen ñun moom ñetti tata mooy sama oto ak oto ku ñuy wax Gora Ndiaye ak oto ku ñuy wax Moussa Thiam toj seen biir yëpp pare-brise yi avant arrière yëpp yàq leen. léegi bi ñu taalee ak euh, seen oto yi ak ñii nii ci jamono ji ñu toll nga xamante ne gis nañ ne manifestation yi xaw na wàññeeku nan ngeen koy dundee. waaw booba léegi ñun ñu oto yi ñu ngi jéem a defaraat rek pour pour jéem a daw noonu ndax bu defee sunu sunu constat ci wiise bi def def sunu devis ah ñu ngi ñu ngi jéem a demal ci tali bi seewaat xam. léegi lan ngeen di wax état bi. xanaa xanaa mu ñu jàppale ñu rek yu mel nii ñu ñu fexe ñu koy moytoo ndax yu baaxul daal ci réew waaw ñu jàppale ñu rek ñu fexe ñu